يا ربنا إن الورى تدره لأوليائك ما ليسو bokki réew mi bokki bitim réew noo ngi leen di nuyu mbooloo mu tedd mi ngeen jàkkaar lool mooy njabootuk Serigne baara gi ci topp bi topp bi Diop nekk ci commune Kébémer di topp bi Cheikh Mouhamadou Lamine kilifa ngi ngeen gis jàkkaarloog moom mooy Serigne maam Bara Mbacké moom Serigne Moustapha moom Serigne Abdou Aziz muy nag centuk Serigne baara gi ñuy def at mu ne ci topp bi ren nag ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février gannaaw ba nu amee ndigal ci xalifa guy mbind xalifa Cheikh Modou Lamine Bara Serigne Moustapha Cheikh Sidil Mokhtar ñëw ci rakkam tubarkalla Serigne Saliou Mbacké moom Serigne Khadim Awa Ba moom Serigne am ndigal nag lu bàyyi ko Serigne Abdoul Karim Mbacké moom Serigne Abdou Aziz moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw nag ci Serigne Abdoul Aziz Mbacké moom Serigne Moustapha Serigne Mame Bara mii toog ànd nag ak waa Tobbi gépp daayira Tobbi njabootuk Serigne Touba gi nekk Tobbi borom dëkk bi tubarkalla délégué de quartier Serigne Samba Diop ak imaamu dëkk bi Serigne Alioune Diop ak nag daayira bi yëpp bàcc ami ak njabootu Serigne Touba gi fi nekk yëpp tubarkalla wàllu jigéen ñi soxna maam jaara soxna Mbayang soxna Diop Sill soxna Maguette Diop ñoo ñëpp àndandoo nag takku doon ay Baye Fall ci bis bii nga xam ne mooy bisu Cheikh Modou Lamine Bara Mbacké yëgal ko it le maire de la commune de Kébémer Alhaji Mamadou Lamine Thiam ak bureau municipal yëpp le préfet du département. ñoo ngi woo jànkati alxuraan yëpp ñu ñëw teewe si ko ak tund wi yëpp daal ci gàttal topp bi Ndakaar Kébé Njabi ak dëkk yi wër yëpp ñoo ngi leen di woo ci bis bi. te xam ne bis bi bisub Serigne Touba la bisub Serigne Baara la. sëñ Baara noonu tobbi sama gog ñu dem ba mu yàgg sëñ Baara dellu si maam Baara ak ñii ci sunu gannaaw fas na nu yéene nag nanu ko jàppe woon daaw daanu ko jàppee nu ko raw mbaanu ni mel bokk yëpp képp koo xam ne yaa ngi dégg télé bi wala ngay dégg rajo ñu ngi lay woo amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw ku fi dikk rek na nga xam xel ni cant nag moo la indi jàng alxuraan jàng xasaayit ak bernde yooyu mooy cant ci leen ko fas yéene teg. maa ngi woo sama mbokki immigré yi képp koo xam ni dégg nga dégg nga communiqué bii mooy te lettre invitation programme bi nag nii lay demee. ñu jàng alxuraan yi ci yoor-yoor bi ba ba 4 heures Moustapha Seck dana fi jàng Gana Messere dana fi waxtaan. képp ku fi ñëw yàlla na yàlla sëñ Tuubaa faj saajo ci barke sëñ Baara. ñu ciy woo mbokki daayira yëpp. Euh, nun waa xidmatul xadim ñi nga xam ne ñoo yore organisation bi ci euh, ndigalu suñu jëwriñ Ibra Say ak maam Góor Sylla ñi ngi woo ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi jàpp ci njàng mi jàpp ci bis bi ba mu mel ne mu war a mel maanaam nekk ca waañ wa nekk fépp ndax xidmatul xadim moom mooy ñi nga xam ne ñoo war a organiser bis yëpp rawatina nag bis bi nga xam ne si day bisu sëriñ bi dellusiwaat nag di bisu sëriñ baara kon yaakaar naa ñu am ci ñaari taxawaay ñi ngi ci woo góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi eh, maanaam daayira yëpp nag daayira Ndaxaar Keemeer Njabi fu daayira nekk rek ñu ngi lay woo rawatina nag xidmatul xadim muy góor ñi ak jigéen ñi. Eh, muy bis boo xam ne bu ñu ca àggeet nañ leen ko jàpp bu baax a baax a baax liggéey ko ba nga xam ne si lépp dana mel ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee. di sant sëriñ maam Baara Mbacke sunu jëwriñ ci kër sëñ Baara di sant waa topp bi ñu fi nekk ñëpp di leen sant di leen gërëm. di commencé ci nuyoo bi euh, di woo monsieur le préfet Mamadou Lamine Mané di ko woo ci cantu topp bi di woo Mamadou Lamine Thiam maire de la commune de Kébémer di woo ay adjoints yëpp di woo conseil municipal yi nekk ci mairie Kébémer bépp di woo CRD bi yëpp di woo bépp jullit boo xam ne yaa ngi dégg sama kàddu maa ngi woo ñëpp ci ñun jigéen ñi nag laay commencé. nañ wàcc lal yi defar néeg yi defar ëtt yi yaatal gan ñi teral leen teeru leen di ñaan yàlla nag lii ñu commencé yàlla nañ ko duggee bisimilahi rahmaani rahim eggalee ko alhamdulilahi rabil alamin di leen wax ni cantu sëñ baara gi at mu ne lañ ko daan def ci topp bi jóob ñoo ngi woo suñ mbokki jigéen yi ak suñ mbokki jullit yëpp ñoo ngi woo suñ moroom yi ñu ñëw jàppale lañu ci bis bi waaw ñun jigéen ñëpp nañ génn teel a génn teel a solu teel a dem ca baas ba. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli di mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam sant sunu yaakaar te di ko ñaanal Serigne taxa Bassirou ñaan suñ borom yàggal ko fi te wéral ko ba lim yéene ci toolub Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba bi mu àggale ko. di am ndigal ci Serigne Moustapha mi nga xam ne moo toog jotaayub Cheikh Mouhamad Lamine Baara di ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko ba lem ci yéen yëpp mu àggale ko mu wàcc nag ci rakkam eh, Serigne Abdul Karim moom Serigne Abdul Aziz Baara ak Serigne eh, Saliou Mbacke moom Serigne Xarim Awoba ak Serigne Abdul Aziz moom Serigne Moustapha Abdul Aziz Baara. ñu toog fii ci bi Jóob ci cant goo xamante ni bii dëkk bi ñoo ko baaxoo amal di ci sant su sunu sëriñ suñu yaakaar Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bis booba nag ñu koy amal le 22 février tombeek bisub gaaw bis bi nag danañ ci jàng alxuraanul karim danañ ci jàng xasida danañ ci waxtaan ci diggante Cheikh Mouhamadou Lamine Bara danañ fi jàng yëkkati xasida kii def waxtaan wi mooy sëriñ Gana Messere kii yëkkati xasida yi mooy sëriñ Moustapha euh, sëriñ bi tamit amoon na nisuru yéene fas yéene koo teewe ren yal na ko yàlla àggale ba am jooju suñ borom àggale ko kon nag bis biib Cheikh Mouhamad Lamine Baara ñun amuñ lu dul Cheikh Mouhamad Lamine Baara amuñ lu dul dëkk bi di Tobbi Diop fi lañ nekk samp fi daare alxuraan di ko fi jàngale ba mbooloo mu yaatu mokkale fi alxuraan kon dëkk bi ñu ngi ciy woo bépp jullit ak bépp taalibe da ci woo administration bi képp koo xamante ne bi eh, lu baax yitteel na la rek woo nañ la ci ñu ngi ciy tarixe yi nga xam ne ñoo nekk ci ñoo nekk ci diiwaan bi di ci woo tamit jàngkatu xasida yi jàngkatu alxuraan yi bis tamit lépp loo xamante ni bii waaye aaja woon na ko yitte woon na ko sëriñ Moustapha moo ko wax ci gémmiñu boppam na ma Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mën na boppam te mat na boppam lu ci waaye sàkku suñ borom dana ko defal yàlla nañ ci àgg ak jàmm ak salaam wasalaamualeykum wa rahmatullah. xam ngeen ni nag sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Sidil Muxtaar di xalifa guy mbind bëgg a liggéeyal maamam tax na ba yéeneem ak bëgg-bëgg mooy bëgg le 22 mu ñëwal boppam jiiteel boppam cantuk sëriñ Mame kon bis baa ngi noonu kooku den wax muy sëriñ Mame Bara Mbacké moom moo ñëw topp bi fottar ci daaray alxuraan yi fas yéene àggale liggéeyu maamam ak yéegéenay maamam def ko it ci ndigalu ay waajuram sëriñ Saliou Mbacké moom sëriñ Xaadimaw Ba sëriñ Abdul Karim Mbacké moom Serigne Abdou Aziz Serigne Moustapha Mbacke magam mu ñëw nag tobbi àndandoo ak waa tobbi wuufu ay rakkam soo seenee Serigne Abdou Karim ma nga jëm ca Serigne Mame Bara boo seenee Serigne Axma ma nga jëm ca Serigne Mame Bara koo seen te tobbi ñëpp àndandoo nañu bokk ndey bokk baay jëm ca Serigne Mame Bara Serigne Mame Bara moom nag nga xam ni moo fi toogal Serigne Moustapha Mbacke Cheikh Sidil Mokhtar xalifa guy mbind toogal fik waa kër Serigne Touba yëpp. moom ngeen jàkkaarloo nekk ci cant gii nga xam ni mooy ñaar fukki fan ak ñaar ñu koy sant maamam turandoom Cheikh Modou Lamine Bara la maamam daan wax Cheikh Sidil Mokhtar amul murit amul xaadir amul tijaan moom la yeesalaat ba tax na neena na tarixa yëpp invité na leen ci topp bi bisub cant gii nga xam ni Serigne Maam Bara wax na nee na maamam ñomewul bor dafa amuk pay kon borom mu naawirul buniyaan ñu nar ko màggalal nar koo sant le 22 ci topp bi ñoo ngi ko woo ñëpp ne ñëpp ñëw ya rabbana innal wara tadaraho li awliyahi kaman liyasoho ilayka ya rabbal wara ya rabbana ya rabbana ya rabbana fakun lana